jërë ngeen jëf loppu tuuru la ñu wax li xew démb ca njël ca ngën sarga ca sàkkal ga ca Louga l'observateur nee nañu mooy de trop pili yéene kaay bi accident bu metti ñaari wata yu mbëkkante ci kaw tali bi ba ñaar fukki doomi aadama ak ñaar faatu ca ñaar fukki nit ak ñeent jële ci ay gaañu-gaañu ñëw ñee ci jëlee gaañu-gaañu yéene kaay bi mi ngi ñuy xamal ne am na ci ñoom juróom-ñeent yoo xam ne seeni gaañu-gaañu garaaw nañu benn kaaru njaganjaay bu yaboon ba fees moo doon moytu benn mbaam bu newoon ci kanamam ba far daje ko camion ñëw ñaar fukki nit ak ñaar yi des ci bile accident seeni tur seeni identité ñi ngi ci biir l'observateur naka noonu nit ay témoignage yéene kaay bi jëlee ci ay nit yu dëkk ci dëkk bii di ngën saar di fa accident ba amee le mandat nañu ginnaaw six kilo ñaar fukki nit ak ñaar faatu nañu nañu cib accident démb ca sàkkal tribune ci juróom-ñetti fan ñaari accident am nañu ci réew mi ba yóbbu juróom-benn fukki bakkan ak ñeent libération na ko ëpp na ko boo boolee ñeen fukki nit ak ñaar yi faatu woon ci accident ba woon ca 6 kilo ak ñaar fukki nit ñaari ñàkk seen bakkan ci accident démb bi ca ngën saar ñooñee bu ñu fekkee borom moto bi benn borom oto mbëkk ca Kédougou ba mu ñàkk bakkanam dafay doon juróom-benn fukki doomi aadama ak juróom yu ñàkk seen bakkan ci réew mi ci accident ci diiru benn semaine boo boolee la xewoon ak la xew ca sàkkal le quotidien mu ko jàngate moo di ab semaine bu bari lool deret ci kaw tali bi la xewoon ca Kaffrine ronxañ ja feregul yeneen i bakkan yu tëddaat ci tali bi Le L'As Vox Populi Enquête yéenekaay L'Info journal Les Échos ñoom ñëpp ci accident bu métti bi xew démb ci la xëy yamale seen xët yu njëkk Soleil national nañu réew mi sóobooti na ciw tiis ab kaar moom bëkkante akub camion ci yoon wi dox ci diggante Louga ak Ndar ba ñaar fukki nit ak ñaar ñàkk ci seen bakkan ñaar fukk ak ñett jëlee ci ay gaañu-gaañu ci ñoom am yoo xam ne seeni gaañu-gaañu dañoo garaaw ba mi ñoo ngi koy wër wër gu mit journal bi mi ngi ñuy xamali ne wata bi yeboon nit ñi dafa defoon surcharge surcharge son na lu toll ci fukki nit ak juróom surcharge dëgg journal bés bi le jour nee nañu mooy Mansour Faye Mansour Faye ministre des transports yéenekaay bi nee nañu surcharge la ci président Macky ndax rapport Cour des comptes bi génn na fi Mansour Faye taq ci ripp ñu koy lijjanti pare gu tegaloo ci réew mi bakkan di rot ñu leen sens ne ku nekk cib dëj di jooy juróom-benn fukki bakkan ak lu teg yu des ci tali bi ci accident foofee di fa wax waxi gerew jaaduwul li indi gerew bi mu di mesure état bi jël direct ci news nee nañu premier ministre Amadou Ba nee na tey la état bi gën a taxaw tey la gën doge ci ñu appliqué ko Walf Quotidien ci waxi politique ci la xëy appliqué wu xët mu njëkk journal bi li mu bind moo di coowal troisième candidature bu Macky Sall bi yëngal na majorité bi troisième candidature bu ma ca wax keroog yëngal na tontu ci nee na mënee suta toog ci der ba noppi di jëw yàpp muy moom Abdoulaye Wilane di keneen ku nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar te àndoo ci troisième candidature bi Macky Sall lii ngor moo di nga buub say kaake jóge ci biir Benno Bokk Yaakaar maire bu ànd ci troisième candidature bu Macky Sall bi mooy Mamadou Gueye maire bu jide caaroy kaw investir na Macky Sall jël parti ba mu yoroon tas ko seeyal ko ci biir APR ba noppi nag ne fu mu yam nee da koy daanu la koy def journaliste ko mel ne naan ko ndax doo xooli keneen ne ñaari mbër yi mu di Zarko ak Ada Fass lise ko nee nañu CNG bi suspendre na leen aj na leen un atum yàlla moo xam ne duñu ko bëre li ko waral lise ko nee nañu moo di ci seen combat keroog bi dañoo dépassé heure bi ñu waroon a bëre